douze ans wu tooñ la ak lor jam jàmbur yi douze ans yi mu toog yépp douze ans jaay doole la ak essayer toroxal nit ñi waaye nag am na benn fee boo xam ne maa ngi koy wax Sénégal yépp nañ ñu déglu lu am solo la la pe et la stabilité dans ce pays mooy suñu matière première lun moo jiitu pétrole moo jiitu gaz moo jiitu or moo jiitu zircon Macky Sall moo fi nekk président bu njëkk a créé ay milices ay milices ay Samba Boy dugal leen ñuy jaxasoog police yor ay lance-grenade yor ay fetal di ko tiire ci sénégalais yi loolu kenn du ko nangu ci réew mi ñu ngi koy dànkaafu une dernière fois ne téye ay milices am ndax ku xool fi daje xam ni bu doon créer ay milices rek yomb nañu lool. tax ndaw ñi fi nekk ñëpp dañoo nekk seen dikk doole entraîné nañu ba mat li ñu leen doyee koo ci joxoon gànnaay mu dem xeexi na tee ay milisam ndax li xew keroog ci corniche bi ay milisu Macky Sall yor fa ay grenades lacrymogènes ak ay fetal ba alkaati yi ñemewuñu leen jàpp ne faw ñu jël ma dugal ma ñoom seen fourgon blindé pour bañ ñooñu téye ñu ay fetal loolu gàcce Sénégal la te maa ngi dànkaafu Macky Sall ndax benn bis bu laalee benn ci leader yi fi nekk le peuple va le sortir du palais et va le traîner comme Samuel Doe comme tous les yi nga xam ne jaar nañ ci mbokki PUR rassemblement bi dal na xel waaye di doon bu mujje suñu rassemblement ndax daje yi ñuy daje dafa am solo message bu ñuy lancer au monde entier que Macky Sall est politiquement et sociologiquement minorisé dans ce pays suñ fi toogoon ba deux heures du matin kenn du fi jóg dem yoonam waaye moom saa yu dajalee ay nitam balaa ñoom ñu jël kàddu nit ñi dem seen yoon parce que c'est des foules ak ñu ñuy fay ay deux ak ay cinq mille ñun bokkuñoo ak ñoom ñoom bokkuñoo ñun moo tax nag loolu xam nañ ko dama ne kenn doon ànd ak sëñ Moustapha Sy ñu koy fay pour mu ñëw wuyu si sëñ Moustapha Sy kenn doon ànd ak Ousmane ko ñu koy fay pour mu ñëw wuyu si Ousmane ko xam nañ ni ay militant dëgg lañu am ute naag ñi ñuy transporter ñuy na ñuy fooy seen xel moo tax nag fi may daanele nii daje bi rafetee tey ci géejawaay ni mu rafetee woon keroog ci Kër Massar. ni mu doon rafetee keroog Mbàkke ñu tiit ba interdire ko wi Askan Wi dina jàpp dat fan yii bëgguñu méga meeting de giga meeting la ñu bëgg giga meeting la bëgg ndax xam ngeen ni capacité bii pur am Pastef am ko taxawu am ko keneen a keneen am ko amul fenn fu ñu mën a contenir fii ci Sénégal waaye dañoo bëgg rassemblement boo xam ne cent mille sénégalais nañ fa daje ba Macky Sall xam ni xajuñu ci moom ba Macky Sall xam ni duñu moroomam ba Macky Sall xam ni jeexal na ci réew mi ba Macky Sall xam ni bis bu ñu jógee dox jëm pale dara mënu koo sobe du police du gendarmerie du armée je vous remercie asalaamaaleykum